asalaamaaleykum gars yi na ngeen def maa ngi leen di nuyu di leen ziar leen fàtte leen ak seen canal Galsen Tube la canal de youtubeur ci seen programme comment gagner de l'argent sur youtube naka la ñuy gagner xaalis ci youtube yi a leen koy defal di Pamor Lo ñu leen koy defal en wolof euh, bi série de vidéo bi nag ci AdSense lañu ñëw incha def ci benn série de vidéo pour def ci maximum suñu kéem lay kàttan ay éclaircissement waaw ah, vidéo bi nag mooy numéro maanaam un bi ci série de yooyu ñuy def waaw ah, playlist lay nekk boo xam ne playlist spéciale AdSense lay nekk comme ni ñu ko defee ci YouTube Studio defee ko ko ci OBS et cetera noonu lañ koy defee ci AdSense bi mooy vidéo bi ci njëkk muy introduction bi voilà. vidéo introduction nag duñ ci dugg xóot xóotal lenn rek lañ ciy tënk euh, moo tax du gudd muy lan muy ku dugg ci sa AdSense ngay ci ay différence nga xam ni benn la rek voilà muy lan muy AdSense bii ngay gis ak AdSense bii ngay gis voilà AdSense bii. ak AdSense bi benn la voilà léeg-léeg am na ñoo xam ne seen AdSense dañoo gisoon maanaam nii la mel nii mu bëla ñu bëri dañ ma koy laaj fan yi ne sama AdSense damay dugg dootuma gis affaire yu bële yi affaire yu nga xam ne du pour YouTube non non AdSense biñ ko créé comme nii lii nii booy monétiser site internet bu fekkoon tey da nga yor site internet par exemple yaa ngi tudd Samba Ndiaye am site bu tudd samba ndiaye point com voilà wala nga moom Senego wala Seneweb et cetera site internet boobu nga monétiser ko ak AdSense maanaam chaque jour li nga xam ne généré nga ko da ngay gis fii da lay defal fi ay revenu revenu estimé la lay defal maanaam aujourd'hui li nga gagné gum day affiché fii li nga gagné démb kase kase da koy affiché fii li nga gagné ci semaine bi passé da koy affiché fii li nga gagné maanaam ci weer bi dala la koy affiché fii maanaam fii ji nga mu defal la vingt 28 derniers jours comprendre nga su fekkee daam am loo gagné fayee googu xum affiché ko fii su doon nag da nga monétiser euh, chaîne YouTube bi ak site internet bi comme site yi nu ñu koy defee par exemple mën nañ jël exemple par exemple Sénégal 7 am na site internet am na chaîne YouTube su dee monétiser na ñaar yëpp si même AdSense bi lépp ci benn compte bi lañ ko koy versel liy affiché fii mooy concerné comme ni ma la wax site internet sénégal 7 point li nga xam ne mooy affiché fii nag solde bi mooy concerné sénégal 7 point com ak sénégal 7 YouTube moom benn montant lay nekk bu ñu ko envoyé ci solde mu feeñ fii. waaw su fekkee euh, li ñu leen fay ci weer bi passé mooy affiché fii dernier paiement li nga xam ne moo nekk fii la le 21 pour ñu fay leen ko mooy affiché fii solde waaw noonu lay demee léegi nag su fekkee euh, par exemple tey da nga dugg si sa li nga xam ne mooy sa AdSense nga dugg ci sa AdSense gis mu mel nii loolu muy tekk AdSense suñu commencé def ay modification mois de mars bi la ñu waxoon modification yi dinañ ko def ci at dinañ fexe daal ci mois de mars bi ñëpp am ko mais am na suñu bëri ñoo xam ne ba léegi seen lu bule la ñuy gis ba léegi am ñoo xam nag majorité bi léegi lii la ñuy gis bu ñu duggee si AdSense nga xam ne AdSense moo def ay coppite su fekkee nag YouTube kese ngay monétiser nga dugg fii lii bu ci cliquer dara concerné wu la voilà fii nii concerné wu la concerné wul ñiy monétiser YouTube nga bàyyi xel AdSense créé wuñ ko pour YouTube YouTube moo dabe YouTube moo ñëw ñëw dabe si. ñu koy monétiser ñu jël ko dugal ko ci biir AdSense pour mu fay fayee ko loolu la mais AdSense bi ñu ko defaree pour monétiser ay site internet la waaw AdSense moo mag YouTube foofu pour ay monétiser ay site internet la léegi nag YouTube bi mu ñëwee tamit waa Google bi ñu ko jëndee intégré ko ci dugal ko ci AdSense noonu la demee moo tax sa compte AdSense par défaut pour monétiser site internet la léegi bi nga xamee nag seen YouTube yi ñu ngi commencé monétiser bëri YouTube nag léegi euh, waa Google créé AdSense boo xam ni version daal bu ñu xaw a wàññi tuuti la réduire ko. maanaam def ko pour YouTube soo duggee di monétiser su dee YouTube nga am rek ñu defaral la AdSense bu simple noonu rek waaw mais AdSense la donte AdSense la di nga ci mën a monétiser site internet mais ñu defal la bu simple muy comme bii basique gis nga accueil yi nga paramètre de blocage paiement compte commentaire jeex na nga xam ni lan lay jëriñ pour recevoir paiement YouTube compte bu ñu la fayee YouTube chaque weer mu ñëw affiché fii solde weer weer ñu transféré sa compte banque mu affiché dernier beneen weer bu ñu la fayaatee muy affiché solde ñu envoyé la ko sa compte banque muy affiché muy dem mu dem paiement nga xam ne fii maanaam le 8 lay affiché le 21 jëm kaw mu dugg mu jeex loolu kese ngay doy AdSense bu dee da ngay YouTube voilà léegi nag booy monétiser léegi bu site internet après xam yaay demande pour site internet ñu soog yokk affaire site internet yi léegi nag AdSense dañoo décidé lépp ñu dugal ko ci même compte ku am compte AdSense rek lépp ci nekk pour monétiser site internet pour monétiser YouTube lépp lañ lay defaral moo tax ñu def ko nii voilà gis defal fii ajouter un site ajouter un du ajouter une gars yi des fois dañuy jaawal dañuy gis ajouter un site ñu cliquer dem fi di fa wër seen lien YouTube te loolu day indi day jafe-jafe boobu wala am ñoom sax du ñu am du ñu am euh, kii chaîne ñu cliquer ajouter un site xam ni site ak chaîne bokkul ñu dem par exemple mu ngi mel ni nga yor Pape Mor Lo euh, gaal seen tub euh, léegi ñu ne la nga cliquer fii ba pare yow yoroo site de nga dem def fa Pape Mor Lo seen tub point com am ñoom dañuy bind noonu defe ne da defe ne boo ko bindee noonu rek day jàll nga bind ko nag mu ne la site bii nga dugal nag. confirmel ni yaa ko moom jox la benn code ne la demal placer ko ci site bi pour ñu xam ne yaa moom site bi léegi nag xam nga doo ko mën a placer parce que bi existé wul te léegi fii ak placé woo ko message boobu day continuer nekk sa si sa AdSense ne la comme yaa ne yaa moom site bi nga pour ñu xam ko moom léegi affaire bi nekk foofu ci kii ba mu bañ a dañ loolu nga bàyyi ci xel moo tax YouTube rek rek rek nga am di ko monétiser AdSense fii yow concerné wu la waaw mooy boo duggee ak ay li ngay gis concerné wu la li la concerné lan la mooy boo duggee ci AdSense ngay ñëw fii paiement fii ngay ñëw paiement nga cliquer paiement soo cliquer paiement fii moo la concerné léegi fii lay affiché waaw affaire yu bële yi concerné tu la parce que dindi nañ ko sa AdSense léegi fii moo la concerné paiement boo ñëwee fii di baar bi su fekkee dafa chargé bële di nga gis mu chargé bële ñu defal la montant bi nga xam ne war nga koo fayeeku sa mode de paiement fii nga koy ajouté bu dee ajouté goo ko comprendre nga information yi des fii la la koy defal dernier paiement yeeg et cetera et cetera voilà comprendre nga léegi noonu la boo bëggee xam la paiement nga ñëw di nga dina sélectionner information AdSense validé na ko ak validé wuñ ko nga ñëw vérification jeex na voilà bii validé nañ ko c'est terminé comprendre information compte yeeg et yépp yëpp si des noonu la léegi yaa ngi fii akay sa AdSense mel na nii te melul woon nii da duggoon gis muy bëla nii li nga tàmm gis. parce que gars yi bari li ñuy gis montant yi zéro euro euro day dalal seen xel tuuti voilà bu ñu duggee rek gisatuñ ko mu mel nii lii moom xaw dafa xaw a waaw dafa dafa xaw a géey waa <laughs> lii moo gën a moo gën a rafet xool lii moo gën a rafet xool parce que ay xaalis la lay affiché donte ay zéro la sax mais ay xaalis la voilà <laughs> loolu la macha allah léegi nag nga xam ne rek changement kase la mais AdSense amul benn problème lii nga daan gis gisatoo ko boo duggee yaa ngi gis lii c'est normal AdSense amul benn problème. soo bëggee xam li nga li nga gagné ci weer bee passé ñëwal la nga cliquer fi ñu def payma comprendre nga aussi simple que sa bu fekkee nag yaa ngi may setaan te yaa ngi utiliser téléphone xam am nga ne ah ordinateur nga ko wane téléphone nii lay affiché rek voilà nii lay def comme nii voilà bu ñu xaan fii gis nga téléphone nii lay affiché voilà nii lay bu tegee day ñëw comme ordinateur mais boo génnee gis nga option téléphone bi nii lay def soo duggee si si sa AdSense si téléphone. soo bëggee baar yi yi génn ay bind cliquer trois traits mu génn nga ñëw ba fi paiement nga cliquer c'est la même chose boo cliquer paiement mu di la page bi nga xam fu mu toll jot nga sa xaalis boo jotee mu nekk solde voilà jeex na après dañ la ko transférer bu dee information yëpp normal na voilà aussi simple que ça. léegi nag bii introduction la woon foofu lañu ci yem muy différence bi am ci ñaar ci accueil AdSense yi voilà muy bii ak li nga ne mooy bii voilà fii lañ ci yem léegi nag vidéo euh, bii di ñëw ñu continuer ko incha allah. de dugg nag commencé détailler AdSense yi point par point bu ko defee nit ñi AdSense yu gën koo comprendre voilà. am na si ñoo xam ni tam peut-être am nañ jafe-jafe xam naa vidéo bi ñëw so loolu la ñuy njëkk def boo nekkee ci AdSense bëgg envoyer message waa AdSense loolu la ñuy njëkkee pour ñi am jafe-jafe si paiement yi bu ñu bëggee envoyer message AdSense ñu xam fu ñu koy jaar muy fii nga xamante ni moom mooy point d'interrogation bi voilà vidéo bii si topp moom lay doon incha allah rabbi kon ñu ngi leen jox rendez-vous ba vidéo bii di ngeen jëf